Serigne Bara Niang Serigne Bara Niang mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1880 ci dëkk bu ñuy wax nag Afetoun Afetoun nag mi ngi ci suuf si nag di Saalum ci wetu dëkk bi nag di Naawel ci région nag de Kaffrine ci dëkk boobu nag la feeñee jamono di doomu Serigne Njoogu Mati Niang ak soxna Xari Bousso moom Serigne Mouhamadou Lamine Bara waa waajuram nag mi ngi ko fayee ngën di mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam am na nag ñum bokkal nag sëriñ Njoogu Mati Niang ak soxna Xari bu Bousso ñu mën cee ràññee nag soxna Fatimatu Niang bintu soxna Xari Bousso bintu Serigne Njoogu Mati Niang ak moom sëriñ baara ñang ibnu soxna xari buso ibnu sëriñ njoogu mati ñan kenn ku jigéen nag la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñaara waajuram woow nag di soxna xari buso bi fi sëriñ njoogu mati nag bàyyi ko lañ ko jébbal nag rakku sëriñ njoogu mati ba di sëriñ mohamadou faajama ñang mook sëriñ mohamadou faajama ñang nag am nañ ak njaboota juróomi bant nag la leen suñ borom dénkoon juróomi bant yépp itam nag laataa ñuy samp kër nag dañoo génn àdduna soxna xari buso moomu nag di waajuram ma ngi wetu nag waajuram sëriñ buso bi buso nag ci armeer barke yi laataa sax ñuy xuus nag ci am njàngam ñu wax leen nag waajuram sëriñ njoogu mati ñang nag moom mooy kan ak dëkk boobu mu feeñe jamono nag di aafe tun dëkk boobu nag di aafe maamam nag moo ko sanc di sëriñ tafsir nag baara xuja ñang bi mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di saalum dëkk boobu itam nag di aafe doomi maam balla ay sa mbàkke bii nag ñuy wax soxna faati balla mbàkke di waajuru sëriñ mbàkke buso sëriñ seexu buso sëriñ masamba faati buso ak soxna xari buso mi itam nag ci dëkk boobu itam nag di aafe itam nag ñu denc soxna mati buso di doomu maam asta waalo mbàkke ak sëriñ mouhamadou bousso di magi soxna jaaratullaahi mi ngi tim nag ci dëkk boobu itim nag ñu denc ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu denc nag ci dëkk boobu nag di aafetul nekk itim nag ci région nag de Kaffrine ci suuf si nag di saalum sëriñ njoogu mati ku kiimaane la woon nitug suñu boroom la woon daana xamal doomu aadama yi ne saa buy delluwaat nag ci boroomam kenn nag du gis nag ab bàmmeelam wala nag muy xam itim nag fan la ab bàmmeelam nag di nekk ba tax na itim nag noonu mu ko daa waxee noonu itim nag ni la na nag àdduna kenn xamul nag ab bàmmeelam xare boobu mu demoon nag ci saalum ca biir xare ba nag la am pënd bu bare bare bare bare nag bu am ca biir pënd ba nag lañ gis nag ak leer nag gu ci jollee nag wuti nag asamaan si amitim nag ñuy tudd baatub suñ borom bi di laa ilaha illallah ginnaaw bu ñu noppee gis nag leer googu jóge woon ca pënd bi ak turu suñ borom woowu ñu doon tudd nag bi pënd bi wuree nag lañ mujjee gis nag jëmm jooju nag di sëriñ njoogu mat yi ab bàmmeelam itam nag ba nëgëni ko te ko mujjee gis jamono itam nag nitug suñu boroom ci tarixa bii ñu tudde nag al tijaaniya itam nag ci la nekkoon ñu bare bare bare bare ci diggante njàmbur nag ak saalum jëmm jooju nag lañ yaakaaroon ay turandoo yu takkoo takku itam nag am na ko sëriñ njoogu mbàkke mi yoroon barabu ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul sëriñ njoogu mati nag lañ ko tuddee sëriñ njoogu ñang mi nekkoon nag imaam nag ci sawiya maam cheikh ilaaji malik nag ci tiwaawoon sëriñ njoogu mati itam nag lañ ko tudde ak ñeneen nag ñeneen nag ñeneen nag ñuñ tudde doomu soxna mati buso bi sëriñ njoogu mati itam nag nekk itam nag ku yéeme ba tax na sëriñ Touba Seexul Xaddim nag mas na wax nag soxna Awa Buso sëriñ Njoogu Mati diirub nag li ma nekk itam nag ci géej gi maa moom itam mosuñoo tàqalikoo benn yoon doomam ji nag di sëriñ Baara Ñang nag bi matee dal alxuraanul karim sëriñ Touba Seexul Xaddim nag moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la sëriñ Touba Seexul Xaddim nag woolu nijaayam sëriñ Masamba Faati Buso mi bokk ak waajuram nag waajur wu góor ak waajur wu jigéen jébbal ko ko nag ngir di ko wax ne mu jàngal nag sëriñ Baara Ñang nag alxuraanul karim sëriñ Baara sëriñ Masamba Faati Buso nag di jàngal alxuraanul karim xel mi nag dafa naqari woon nag ba tax na nag munta mokkal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko sëriñ Masamba Faati Buso nag yitaat nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba nga ma ko joxee ak léegi jàngal ko alxuraanul karim nag dafa jafe ci la sëriñ Tuubaa ba mu ŋaayee nag la tari nag tufli nag ci gémmiñam sëriñ Baara Ñang nag ci la mokkale alxuraanul karim sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim nag doo koo jële Faati Buso jébbalaat ko nijaayam nag sëriñ Mbàkke Buso googu ngir di ko wax na nag na def ci moom nag xam-xam sëriñ mbàkke buso nag moo ko jàngal nag lii di xam-xam bi seexul xaddim nag jógee nag ci géej gi la jël nag doomu sëriñ njoogu mati bii nag di sëriñ baara ñang yóbbaale ko nag gànnaar ba tax na itam nag ci naari gànnaar yooyu itam nag jàng na fa itam nag lii di xam-xam gànnaar googu itam nekkoon na fa itam nag ku jege sëriñ tuubaa seexul xaddim ba wax nañ ne am na naar bu fa nekkoon bu ñu doon wax nag naaji naar bi itam nag dañ koo formé woon moo xam administration bi wala lenn nag ci naari gànnaar nag yu baax ki naa ji mii nag ginnaaw bu mu defee ay pexe nag ngir faagaagal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Baara Ñang mii nag moo ca yam nag bisub keroog mu wéy nag des nag ci loxoy sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba bi Seexul Xaddiim nag jógee gànnaar mu ànd ak Seexul Xaddiim nag ñëw ca yéen ca yéen googu nag la jotee ngërëm sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim boole ko soxna Mariama Seck mook soxna Mariama sekk itam nag am nañ ak njaboot muy ku ñu wax sëriñ Ousmane Ñang ak soxna may Maymunatu ñan ak juróom-ñeenti doomu aadama nag yu génn nag àdduna nag ci seen tuut tànk mu ñëw nag dëkk nag daaru daaru marnaan ci wetu maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bi itim nag dëkkaatoon na tuubaa ci daarul xuddoosa bi sëriñ mbàkke buso nag yeesalee gede la ko seexul xaddiim nag wax ne na dem nag ci wetu nijaayam nag sëriñ mbàkke busoo ginnaaw bu mu ñëwee nag la ko sëriñ mbàkke busoo nag dogal kër ci péncum gede mi sëriñ mbàkke busoo itim nag moo ko defoon nag imaamu gede gede googu itim nag yoroon na fa daaree alxuraanul karim ba na itim nag ñu takkoo takkoo takkoo takku ci sëti sëriñ tuubaa seexul xaddiim wala leen itim nag ci doomi mag ñi moo leen jàngal alxuraan itim ci dëkk di gédee mu nekkin na ku yéeme nag moom sëriñ baara ñang nekkoon na imaam itim ci jàkka jooju nag sëriñ mbàkke buso nag taxawaloon ca gédee ginnaaw ba mu demee nag ba mënatul lañ ko jox nag sëriñ muudu xari buso ngir mu wuutu fa nag sëriñ baara ñang sëriñ maam moor jaara itim nag bi mu sancee dëkk bi itim nag di misra yóbbu woon na ko fa itim nag def ko imaam am na bis sax sëriñ maam moor jaara nag ñëw fa waxtu julli jot mu ne sëriñ baara ñang nag jiiteel julli gi sëriñ baara ñang nag di ko xamal ne daal bi daal yow laa bëgg nag nga jiitee sëriñ Lamine Baara soo matul woon imaam du ma la wax nag nga jiite nag julli Serigne Mouhamadou Lamine Baara nag maa ngi lay xamal ni lépp nag mën naa koo maslaa ba mu des nag sama digganteeg suñu boroom ba tax itam nag mbooleem nag fu ko mag ñooñu masaa fekk su waxtu julli joteem nag moom la jiital mu nekkoon nag ko mokkal alxuraanul karim nag ci ndimbalul Serigne Touba Seexul Xadiima Seexul Xadiim nag moo ko sol alxuraanul karim ba tax na itam nag daana jàngale itam nag alxuraanul karim nag ci daara jëm amoon ñu bare bare bare bari nag jànge nañ njoogu mbàkke sëriñ njoogu ñang mi nekkoon nag imaam nag ci sëw ya maam cheikh elaaji malik si sëriñ omar buso di doomu sëriñ busoobe buso sëriñ moodu abdu xaadir mbàkke di doomu sëriñ abdul xaadir mbàkke sëriñ ahmadu asan buso di asan buso ak soxna xadijatu mbàkke sëriñ hamidun loo nekkoon xalifa sëriñ maxtaar binta loo sëriñ cheikh xaasim mbàkke di doomu sëriñ xaasim mbàkke sëriñ abdu baaxe xaasim mbàkke di xalifab sëriñ xaasim mbàkke sëriñ abibu mbàkke xaasim sëriñ moodu maamun buso imaam mi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag jàng nag ci ay loxoom mu nekkit koo xam ne nii nag lu mu la wax nag da nga ko gis Cheikhul Khadim nag na koo wax ne Mouhamadou Lamine Baara defal nañ la loo gis nag bëgg nag muy moom soo demee nag fekk ko nag muy moom loo bëgg nag fekkoo ko fa nga def ko ca nag muy moom loolu itam nag taxoon na itam mbooleem nag ñi mu jamonoon teel itam nag xamoon nañ loolu itam nag ci moom moo xam ay nijaayam moo xam itam nag ay waajuram ba ci mag ñi nga xam ne nii nag ñoo ñoom itam nag ñoo bokkoon ëttub Cheikhul Khadim bi Serigne Baara ñaa ngi nag nekkin nag ku yéeme nekkitim nag ku bokk bokk ak ñépp maamam nag soxna sa Waalo Mbàkke moom lañ jébbaloon nag sëriñ Mouhamadou Bousso soxna Asta Waalo nag mook sëriñ Mouhamadou Bousso nag am nañ ak njaboota ñu mën ca ràññee nag soxna Mati Bousso sëriñ Bousso be Bousso soxna Jaaratulaahi Bousso ak soxna Xujja Ndoom Bousso doomu soxna Asta Waalo bii nag ak sëriñ Mouhamadou Bousso di sëriñ Bousso be Bousso mooy nijaayu sëriñ Touba Seexul Xaddim nag ak Maam Moor Jaara moom meññ itam nag soxna Awa Bousso mi meññ Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom meññ itam nag soxna Aminta Kandi Bousso mi meññ nag Cheikh Abdul Xaadar moom meññ itam nag sëriñ Mbàkke Buso borom Gédé moom meññ itam nag sëriñ Masamba Kandi Buso moom meññ itam nag sëriñ Seexu Buso itam nag mu nekkoon ab taawam ak ñeneen ak ñeneen nag ci ak njabootam soxna jaaratullaahi di doomu soxna Assa Waalo Mbàkke ak sëriñ Muhammadu Buso moom meññ Maam Moor Jaara magi mag ak Seexul Xadiima soxna Xuja Ndoom Buso bi mu matee dem kër ci la nag lañ ko yóbbu woon mu am fa nag benn bant bu ñuy wax nag soxna Xuja Mbay Silla soxna Xuja Mbay Silla mii nag bi mu matee dem kër sëriñ Ahmadu Ndumbe Xabaan bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mandumbe Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Ibrahima Mbàkke xujja ñiitim nag lenn lañ ci maami sëriñ Baara Ñang ak nag ay waajuram moom sëriñ Baara Ñang nag maamam ji nag di soxna Mati Buso bi matee dem kër nag lañ ko jox nag sëriñ Tafsir Baara Xujja Ñang mook sëriñ Tafsir Baara Xujja Ñang nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Ma Mati Ñang sëriñ Njoogu Mati Ñang ñaari bant yooyu nag la soxna Mati Buso am ak sëriñ Tafsir Tafsir Baara Xuja Ñang doomam ji nag di sëriñ ma Lamin Mati Ñang moo meññ na ku ñuy wax sëriñ Njoogu Ñang imaam nekkoon na nag imaam nag ci sëwiya maam Cheikh El Hadji nag bu tiwaawoon ñaareelu doomu nag sëriñ ma Lamin Mati Ñang mooy ku ñuy wax nag soxna Assawaala Ñang soxna Assawaala Ñang mi nag bi matee dem kër sëriñ Afiya Buso ibnu sëriñ Buso bi Buso nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Afiya Buso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Buso mi nekkoon nag chef du village nag ci Touré ak ku ñuy wax nag soxna Mati Bousso ñaareelu doomu soxna Mati Bousso bi ak sëriñ Tafsir Baara Xuja Ñang di sëriñ Njoogu Mati Ñang bi matee taxawal kër lañ ko jébbal nag doomu sëriñ Bousso be ba di soxna Xari Bousso sëriñ Njoogu Mati nag mook soxna Xari Bousso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Faati Ñang sëriñ Lamin Baara Ñang doomu sëriñ Njoogu Mati bu jigéen bii nag di soxna Faati Ñang bi mu matee dem kër lañ ko jébbal nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu am ci nag sëriñ Ibrahima Faati Ñang soxna Faati Ceerno Mbàkke sëriñ Abdourahman Mbàkke Mbàkke ak soxna Buso Ceerno Mbàkke ñaareelu doom sëriñ Njoogu Mati bi ak soxna Xari Buso di sëriñ Lamin Baara Ñang mi moom lañ fas yéenee waxtaane laataa ñuy xuus ci moom nag ñu ñëw nag ci ay jarbaatam soxna Faati ñan mi mu bokkal nag sëriñ Njoogu Mati nag ak soxna Xari Buso bi mu matee dem kër lañ ko jébbal nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru mu am ci nag sëriñ Ibra Faati ñan mi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru fayee nag waajuróom woo nag sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Ibra Faati moom mi ngi nag ci wetu tróndoom nag sëriñ Mbàkke Kajoor nag taawu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru soxna Faty Thierno Mbacke di doomu maam Thierno ak soxna Faty Ñang di jarbaatu sëriñ Baara Ñang bi mu matee dem kër sëriñ moo Roqaya Buso nag lañ ko jébbaloon moog sëriñ moo Roqaya Buso nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Karim Buso sëriñ Abdul Samad Buso sëriñ Koso Buso soxna Ami Buso soxna Naar Buso ak soxna ba tey di soxna Buso Thierno bi mu matee dem kër sëriñ Maxtaar Bintolo Lo nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Maxtaar Binta Lo nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna maam Assa Lo soxna Absatu Lo soxna Jóob Lo ak sëriñ Seexuna Lo soxna maam Assa Lo bi mu matee dem kër nag sëriñ Abdul Xaadar Mbàkke nag lañ ko jébbaloon moo meññ nag sëriñ Moodu Abdu Xaadar Mbàkke sëriñ Cheikh Abdu Xaadar Mbàkke soxna Ami Mbàkke Tuubaa ak soxna Moominatu Mbàkke soxna Absatu Lo di doomu soxna Buso Ceerno ak sëriñ Maxtaar Binta Lo bi mu matee dem kër sëriñ Mustapha Mbàkke Basiiru nag lañ ko jébbaloon Mbacke Basiiru ñu mën caa ràññee na soxna Mariyamu Mbacke sëriñ Ahmadou Mbacke sëriñ Abdul Ahad Mbacke sëriñ Moodu Abdoulaye Mbacke imam soxna Aji Sooda Mbacke ak soxna Xadijatu Mbacke ñoom ñaar ñi nag ay seex lañ doomu soxna Buso Ceerno bi ak sëriñ Maxtaar Bintaloo di soxna Jóob Loo bi mu matee dem kër nag Cheikh Mamadul Faadal Mbacke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadul Faadal Mbacke nag am nañ nag benn bant muy ku ñuy wax nag soxna na itam nag xalifa sëriñ Maxtaar Bintaloo Lo lii itam nag lenn la ci jaar baat nag ak sëti sëriñ Baara Ñang mu nekki nag ku njabootu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gi doyloo woon seex ma mu Mamadul Moustapha Mbàkke daana def nag benn fanu tamxarit gu jot mu ñëw gédde nag seet si nag sëriñ Baara ma Cheikh dul Faadal Mbàkke moom doomu ndeyam la woon soxna Xari Buso ak soxna Awa Buso ñoo bokk nag sëriñ Buso be Buso soxna Xari Buso mi meññi sëriñ Baara Ñang ak soxna Awa Buso nag mi meññi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñoo bokk nag sëriñ Buso be ku jaxasoo woon nag sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke la sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke Mbàkke itam nag ku ko nawoon la sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke itam nag naka noonu soxna Aminta Kandi Buso doomu sëriñ Buso be Buso la moom itam nag sëriñ Baara Ñang soxna Xari Buso mi ko meññi doomu sëriñ Buso be Buso la doomu ndayu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke la ku jaxasoo woon itam la ak itam nag ay nijaayam ñu mën caa ràññee sëriñ Mbàkke Buso moom la ko Seexul Xadiim nag joxoon ca ba muy tuut tànk ba ni mu nekkee mag moo tax itam nag ci loxoy sëriñ Mbàkke Buso itam nag la nekkoon sëriñ Mbàkke Buso itam nag defoon na ko imaam itam nag ci gedee bi mu génnee àdduna wetu nijaayam sëriñ Mbàkke Buso itam lañ ko denc Diomaye Gédé ji ku jaxasoo woon ak sëriñ Masamba Faati la di nijaayam doomu sëriñ Mbusoobe la te itam nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam nag waxoon na itam nag sëriñ Masamba Faati mu jàngal alxuraan nag sëriñ Baara Busoo ci gàttal daal mën nañoo wax ne daal yoonu murit daal la jaxasooloon ndax nag ak kiimaanam ak xel nag gu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bàyyi woon xel ak joxoñ itam nag gu ko Seexul Xadiim nag joxoñoon nijaayam nag sëriñ Mbàkke Busoo mag ñi nekkoon nag ci roon Seexul Xadiim ñépp a bàyyi woon xel nag sa tub sëriñ Mbusoobe bi mu wéy nag nekk nag Gédé di yar di jàng ak di jàngale ba ñum génn génnee àdduna nag ci atum 1972 laataa muy génn àdduna moom sëriñ baara ñang nag yoraatoon na nag yeneen i soxna ci biir soxna yim dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee soxna mariama soxna mariama sekk nag ak juróom-ñeenti bant nag yoo xam ne ni mook soxna mariama sekk nag am nañ ko ñu génn àdduna nag ci seen tuur tànk moom sëriñ baara ñang nag yoraatoon na baneen soxna muy ku ñuy wax soxna faa kumba faal mook soxna faa kumba faal nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ mbàkke ñang di woon sëriñ Touba Seexul Xadiima soxna Maguette Ñang ak fukki doom ak benn nag yu génne àdduna itam nag ci seen tuut tànk yoraatoon na beneen soxna nag moom sëriñ Baara Ñang muy ku ñu wax soxna Buso Buso moom sëriñ Seexu Buso mook soxna Buso Buso nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Ceerno Ñang ak juróom benn bant nag yoo xam ne itam nag ci seen tuut tànk itam nag lañ génnee àdduna moom sëriñ Baara Ñang itam nag yoraatoon na beneen soxna muy ñu wax nag soxna Adama Seck mook soxna Adama sekk nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Abdoulaye Ñang yoraatoon na beneen soxna soxna nag bu ñuy wax soxna Roqaya Buso mook soxna Roqaya Buso nag juróomi bant nag lañ amoon waaye bant yépp itam nag ñoo génn àdduna itam nag ci seen tuur tànk soxna Roqaya Buso mi doomu Sëriñ Mbàkke Buso la mii nijaayam yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Mariama Buso Alune doomu Sëriñ Alune Buso la moom Sëriñ Buso nag amoon Ababakar Sadeex Ñang ñu gën koo xam nag ci Sëriñ Sadeex Ñang Sëriñ Abdourahmaan Ñang di faye Sëriñ Abdourahmaan Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna as sa waalo ñang yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna atta sànqe mook soxna atta sànqe nag amoon nañu ak njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna maam xëri ñang soxna mariama cekka ñang ñu gën koo xam ne nag ci soxna cekka ñang maam asta waalo ñang ak sëriñ fàllu ñang soxna yii nag la dëkkoo woon itam nag njaboot yi itam nag la ci am ci biir njabootuk sëriñ baara ñang nag ak soxna yim dëkkoo woon ngir xamale leen nag ñoom nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna may ñang moom soxna mariama sekk bi mu matee dem kër cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool nag lañ ko Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul nag am nañu ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Moustapha Mbàkke soxna Mbenn Mbàkke soxna Sooda Mbàkke soxna Maam Ami Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna Màggan Ñang moom soxna Faa Kumba Faal bi mu matee dem kër nag sëriñ Abdou Samad Bousso moom sëriñ moo roqee Bousso nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdou Samad Bousso nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Mouhamadan Bousso sëriñ Jiili Bousso soxna Maam Faati Bousso ak soxna Njóoba bu doomam ji nag di soxna Maam Xari Ñang moom soxna Atta Sànqe bi mu matee dem kër sëriñ Daam Mbàkke moom sëriñ Njóogu Mbàkke nag nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ daam mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Moustapha Mbàkke sëriñ Amdi Mbàkke soxna Bintu Mbàkke soxna Maymunatu Mbàkke soxna maam Ami Mbàkke ak soxna maam Buso Mbàkke doom ji nag di soxna Mariama Cekka Ñang ñu gën koo xam nag ci soxna Cekka Ñang moom soxna Atta Sànqe bi matee dem kër sëriñ Bàcc Buso moom sëriñ Moodu Xari Buso nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Bàcc Buso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Mbàkke Buso soxna Moomi Buso soxna Barakatu Buso ak soxna Daba Buso doomam ji nag di soxna maam Assawa waalo ñang bi mu matee dem kër sëriñ baaxeer ñang nag lañ ko joxoon mook sëriñ baaxeer ñang nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ jiili ñang sëriñ saaliw ñang sëriñ ababakar ñang soxna ami jobbe ñang soxna maam busa ñang ak soxna waalo ñang doomam ji nag di sëriñ mbàkke ñang nag di kim faye woon sëriñ tuubaa xaadim rasuul di doomu soxna faa kumba faal bi muy génn àdduna nag ñetti doom yu jigéen nag la fi bàyyi muy soxna maam faati ñang soxna maam awa ñang ak maneen soxna maam faati ñang soxna maam faati ñang nag lañ jox nag sëriñ basiiru mbàkke moom cheikh mamadul faadal gi nag di sëriñ Thierno Niang moom soxna Bousso Bousso guddul aw fan nag waaye bàyyi na fi nag njaboota muy ku ñuy wax sëriñ fàllu Galas ñan lii itam nag mooy lenn itam nag ci sëti sëriñ bi sëriñ Baara ñan nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci Touba Guédé ci bisub altene fukki fan ak juróom nag ci weeru korité ci atum 1392 nag ci gàddaay gi altene fukki fan ak juróom nag ci weeru korité ci atum 1392 nag ci gàddaay gi dëppoo gi itam muy lundi 20 novembre ci atum 1972 lundi 20 novembre 1972 ci xilaaf ak doomu Serigne Touba bii nag di Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo sàkku itam nag ci rakkam Serigne Souhaïbou Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasool ngir mu jullee nag doomu Serigne Njoogu Mati bi di Serigne Baara Ñang ñu jébbal ko boroomam nag ci jumaay gédé ji ci wetu nijaayam nag Serigne Mbacke Bousso ay xalifaam nag nii la tëddee nag moom Serigne Baara Ñang li ko dalee nag ci atum nag ba ci atum 2012 Serigne Abdoulaye Ñang nag moo toog nag ab toogaayam ci l'an 2012 ba ci l'an proposeur kam faye woon nag Ababacar Saddeex di Serigne Saddeex ñang nag moo toog nag ab toogaayam ci 2012 nag ba ci 2014 2014 nag ba nëgëni Serigne Abdourahmane ñang di kim faye woon nag Serigne Abdourahmane Mbacke moom maam Cheikh ni Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru moo toog nag guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu nag ak mbooleem nag ñu mu séqal nag Serigne Baara ñang waaye nag bi Serigne Abdoulaye ñang nag toogee xalifa nag Serigne Baara ñang Serigne Saddeex ñang Ñang nag moo nekkoon jëwriñam yore itam xilaafa gi ba ci atum mu génn nag àdduna Serigne Bara nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tuddee ak màggal bis bii mu génnoon àdduna nag di fukki fan juróom nag ci weeru korite bis boobu itam nag lu ko jiitu daana ko màggalal boppam nag ci dat boobu Serigne Bara Ñang nag moo yónni nag bàyyi Serigne Ndiaye Guédé ci Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko xamal ne nag damaa bëgg nag nga dem nag ci Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko xamal ne man nag nag doon liggéeyloo ci yoonam wi liggéey ba nag dafa toll nag ci mat àpp ba nag moo jege si barab ba ma jëm nag di yowmal xiyaam nag wax loo xamul nag xewu fa moo taxoon itam nag moom mii nag di fi sëriñ Tuubaa ma bëgg koo xamal nag lenn itam nag ca mbir ya mu doon la xamal na nag liggéey ba nag mat na waaye moom sëriñ Baara Ñang nag daa ñàmbaasoo na waale nag ci liggéey ba barab bi nga xam ne nii nag ci la doon liggéeyalee nag ndigal li ko sëriñ t Seexul Xadim joxoon képp koo xam ne nii nag teew nga ca barab ba suñ borom nag far nag mboolem Ahad Mbacke di xamal nag Baye Serigne Ndiaye Guédé may ma nag ma dem te ñëw nakete nag booba kër Serigne Baara nag la dem nag ci Touba bi mu duggee nag ci kër gi ba tolloog buntu nekk Serigne Baara Ñang la dëppaat nag ñëw nag ci kërug boppam di xamal Baye Serigne Ndiaye Guédé eggaleel nag li nga doon wax Baye Serigne nag di wéyal nag ca wax ja ko xamal ne Serigne bi itam nag ba tey mi ngi wax ne am na loo xam ne nii nag Serigne Touba Seexul Xadim nag ñaanoon na ko itam nag boroomam amewul nag ci ak nekkinam amewul itam nag ci nekkinu Cheikh Modou Moustapha Mbacke amewul itam nag ci nekkinu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke waaye yow mii nag ci sag nekkin nag la amee loolu daal bokk na daal ci lenn loo xam ne nii daal bàyyi sëriñ Njaay Gédé nag wax na ko sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nag ci yónneen nag bu ko sëriñ Baara Ñang yónni woon mu koy xamal itam nag ne bis boo da koo bëgg a wutal itam nag bisub seede muy bis boo xam ne nii itam nag saa bu bis bi del si waatee wax jooju ma waxoon nag ci liggéey ba ne ku teg tànkam nag ci këram suñ borom nag faral la nag sa mboole mi bàkkaar bis ba nag da koo bëgg a jàpp itam nag fukki fan ak juróom nag ci weeru ngir màndargaal loolu nag sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo jëlub lépp loo xam ne nii daal aju na itam nag ci bernde war a dem itam nag ci màggal mu jox ko itam nag sëriñ baara ñang di ko wax ne nag bis bi nag maa ko tàmbalee nag ci lii bis boobu itam nag di fukki fan ak nag ci weeru korite sëriñ baara ñang itam nag ci la daa sant nag sëriñ tuubaa ñaan gi ko ñaanoon nag ngir mu defal ko ko muy fukki fan juróom nag ci weeru korite moom itam nag màggal na ko ay ati ati ati at nag tey itam nag ci bis boobu itam nag la génn àdduna sëriñ sa deex ñang itam nag màggal na ko itam nag ci bis boobu fukki fan ak juróom nag ci weeru korite nag ay ati at ginnaaw bi itam nag la ko toxal ci fukki fukki fan ak juróom nag ci mois de mars ngir itam nag di wax taalibe yi ne fukki fan ak juróom nag ci weeru korite day tombeeg itam nag mu nekk ci nawet ak yeneen daal yoo xam ne nii daal taxoon na itam nag sëriñ sa deex ña ngi itam nag toxal bis bi ci bisu fukki fan ak juróom boobu nag ci mois de mars nag lañ koy fàttaliku léegi di ci dabaale bis ba sëriñ baara ñang waxoon ne képp nag ku teew nag ci këram googu yaa ngi mel na nag kuy doog a feeñ jamono nag ci sa waajuru góor ak sa waajuru jigéen ni ngay ñàkke bàkkaar teew ci këram googu itam nag noonu itam nag ngay ñàkke bàkkaar sëriñ Abdourahmane Niang ñëw itam toog nag toogaayu sëriñ Baara Niang moom itam nag mi ngi wéyal bis bi ci bis boobu nga xam ne nii nag magam nag sëriñ Ababacar Saddeex Niang nag moo ko fi bàyyi woon muy fukki fan ak juróom nag ci mois de mars waaye fukki fan ak juróom nag ci weeru korité ba tey itam nag saa bu dikkaatee danañ wàcce nag ay kaamili alxuraan ngir dabu ci nag bis ba seen waajur nag sëriñ Baara Niang nag doon dabu ñuy ñaan ci ko sëriñ Touba jébbaloon nijaayam sëriñ Mbàkke Buso di sëriñ Baara Niang yàlla ñu ko suñ baram fayal nag te yokk ay